Toujours dans votre scandale de ce 25 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñu plateau de fekk le tocard de la classe politique C'est le tocard du corps syndical de l'enseignement. C'est le tocard de la classe politique néew xam-xam ak xalaat ci lépp loo xamante ni mi ngi koy yëkkati mais cette fois-ci man dafa am benn partenaire boo xamante ni ànd naa ceeg moom te musuma ànd ak moom muy nit koo xamante ni yaakaar naan tey il est devenu la risée des réseaux sociaux il est devenu quand même le comédien de Ousmane Sonko il est devenu le comédien euh, de la classe politique plus particulièrement coalition Yewwi Askan Wi nañu seetaani vidéo bi dox ci diggante ki nga xamante ni mooy l'abonné au GIEC ci lépp loo xamante ne entreprendre na ko dafay abonné wu au GIEC maanaam mosul am résultat day échouer bi mu jàkkaarloog Bouba Ndour par rapport à question bi ko Bouba Ndour posé ak tontu bu indi ak man ban pàcc laa ànd ak moom pour la première fois ma ànd ak abonné au GIEC ci benn partie boo xamante ni yëkkati na ko mu xaw ma jox tuuti koo xamante ni daf mel ne xel bi mi ngi soog a ñëw mi ngi am benn intelligence pour réfléchir nañ seetaan vidéo bi dellu soir. Pour le relégué au second plan et ça me pose un problème c'est-à-dire ñi lay xool ñëpp dañu naan kii Pastef la bokk mais ñoom ko assumé aywa merci les ma tontu. waaw ah, bien sûr. Euh, coalition citoyenne le peuple bi ma bokk moom moo dem bokk Yewwi Askan parce que Yewwi Askan c'est un regroupement de partis et de mouvements Yo, xam ni nous demander à y adhérer wala Yewwi mon rôle bi muy teg euh, en place euh, la coalition. donc man du man Dame Mbodj maa dem yee bokk ci Yewwi Askan Wi sax dama bokk ci ab coalition mm. coalition bu bind Yewwi Askan Wi ko dañoo bëgg a bokk puisque les coalitions mën nañ bokk Yewwi Askan Wi loolu c'est important maintenant xam nga sànq da nga ni ma

Euh, euh, bi bi biñ ne euh, ay sénégalais taxaw nañ. sentir ni par exemple yenn taxawaay yi TFM doon am. deux mais man mais xam nga fan dagg sama dagg. dagg. buuba buuba dagg parce que ça te dérange danga may bàyyi ma daaneel nga wax loo bëgg. daaneel daaneel la man. ji ni parce que yow amoo même boo amul carte Ah, bokkoo ci benn instant. dama la laaj may ma rek may ma rek dama ne la ah? damboj ngay waxal mënoo ma tee li ma bëgg a wax. yàlla dama dama la laaj non non laajoo ma da nga affirmé. da nga affirmé donc léegi yow su fekkee ne mën nga wax ne man aw ma carte de membre.

kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo ki nga xamante ne mooy abonné au GIEC le tocard de la classe politique le tocard de Ousmane Sonko le comédien de Ousmane Sonko la risée des réseaux sociaux ginnaaw bi ko Bouba Ndour posé question jëmale ko maanaam ci paytaleem ci parti bu mbokk muy Pastef nanguwul loolu xam le ni que daal dafa bokk ci benn parti boo xamante ne dafa bokk ci coalition coalition boobu nag ñoo gis sam seen gis-gis bëgg a bokk ci yeewi askan bi bind yeewi askan bi pour dugg ci biir kon moom na jàpp ni que donc en tant que li muy wax parti bu muy wax kenn xamu ko ci kenn xamul parti bi kenn xamul ban légitimité la am xamuñu carte membre lan la am te musul toog ba défendre benn projet wala benn intérêt parti boobu intérêt Ousmane Sonko rek lay toog di défendre donc yomb na tey ñu méngale ko li nga xamante ni mooy parti Ousmane Sonko la bokk mais moom nee na yorul carte Ousmane Sonko mais ci biir loolu aussi Bouba Ndour amee xalaatam ba am perception boobu posé ko man fi ma ànd ak moom mooy comme Bouba Ndour nu mu amee perception comme moom moomu ci parti Ousmane Sonko bi ñu dissoudre la bokk donc ne Bouba Ndour aussi sénégalais yi amoon perception que télévision bii di Futurs Médias dafa am benn proximité ak li nga qui ont pouvoir nous rek lay défendre ñu intérêt ñooñu lay défendre kon en tout cas moi les may wax rek nit ki dof chaque jour mais parfois nga wax benn wax boo xamante ni xaw na yanu donc ni Bouba Ndour xalaatee moom aussi mën na may sénégalais ñu xalaatee non comme loolu mooy liberté d'expression Et en tout cas moom daal xaw ma parti xaw ma coalition mais moi suis abonné au GIEC parce qu'il est devenu le plus grand tocard dans ce pays parce que comédien il est ridicule n'a benn intelligence il n'a xam-xam maanaam Top ci nit ñi al Topel. en tout cas muy débat bi nga xamante ne trop diggante le tocard de la classe politique de Yewi Askanbi, bi le talibé de Ousmane Sonko ak ki nga xamante moy mooy Ndour plateau Yakarno. nga jël ci fii waay mën ci ñaar ba góor la xaw ma lu ma ci ci li doon yaay